كل مريد Hey. والحمد لله رب العالمين ¡Gracias! ko ñëpp wax képp koo xam ne am nga aajo ak ndayam waxal ci kaw sëñ Dior Dia yàlla na yàgg wér. sëñ Dior Dia yàlla na yàgg wér ndax ak yàgg bi tëwéer jariñ la loo xam ni yaakaar naa ni amuñu ko amuñu ko kon kii la kii la ci ñun di fat ci ñun. bànneexoo di yëppal ci ñun kon ak jàkkam ci dëgër mooy suñu lépp kon Ndiaye yàlla nañu yàgg dëgër yàlla nañu yàgg dëgër yàlla nañu ko liggéey lépp sotti nga fekkee lépp ànd koog njaboot yëpp parce que Sëñ Tuubaa waaw ñu ngi sant ñu ngi sant Sëñ Tuubaa si jëmm ji bu baax ñu ngi sant Sëñ Tuubaa si jëmm ji bu baax a baax a baax ñun fii de mën nañoo sant Sëñ Tuubaa si jëmm ji. man nañoo sant Sëriñ Tuubaa si jëmm li ñuy def doon nañ ko fenn doon nañ ko ci bàyyi doon nañ ko ci nekk dëgg mu jural si borom jaarale kon sa liggéey sa liggéey la Sëriñ Tuubaa bu yemoon si suñu jëmm ji rek mooy sëkk te xam nañ ni li nga defar ñun ñoo fi gën a yées ñoo fi yées ñoo fi yées kon amee nañ rek sant boo xam si ni Sëriñ Tuubaa rek lañ koy seere bëgg naa bokk ak ñoom ku nekk bëgg nañoo yëg te lépp sa jëmm ji rek la defal nga ñu xaral nga ñu ba ku nekk bëgg ñoo jiw defal nga ñu bañ gën suñuy waajur defal nga ñu bañ gën suñuy waajur defal nga ñu bañ gën suñuy morom defal nga ñu bañ saboo suñu jëmm ji kon ñu ngi lay saboo jaay ñu ngi lay saboo bu baax a baax a baax a baax ñun de amul amee amee nañu la boo xam ne nii. am na commencement waaye amul yàq ñun ku xam fa ñu jugee fa ñu jugee na mu mel ak suñu ñoom yi ñu ko defaree ba ku gis xam ni defar nañ defar nañu xam xam nañ ni am nañu am nañu sëriñ bu mat sëriñ am nañu wërsëg bu mat sëriñ kon ñu nekk kenn duñu gis kenn duñu gis naan naa jox kenn kenn kenn duñu gis naan naa jox képp koy wax baaxu sëriñ Thierno bu ko def bu ñu jëlee nga xam ne sëriñ Thierno amul morom kon sant nañ bu baax sant nañ bu baax daal sant nañ bu baax a baax sant nañ bu baax sant nañ bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Moustapha Serigne nee na mënu gisul jéegul mënul digal nee na mi bu baax jaaree ziar yi ci yow nga jaaree ko ci kilifa yi kilifa yi di leen ñaanal nee na yàlla na la yàlla yaakaar ci seen kanam nee na mi ngi leen di ñaanal gudd fan ak tawfeex nee na mi ngi dolli ci yeesal jëppalam nee na mi ngi leen di ziar mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen denc ñoom ngeen góorgóorlu jaamu yàlla góorgóorlu jaamu yàlla góorgóorlu jaamu yàlla ndax jaamu yàlla mooy tax yaakaar àdduna ak yeneen ëllëg ak góorgóorlu ci liggéey ndax liggéey mooy tax ya am saa yi àdduna ndax ay problème sax taxut a am waaye mooy tax nga xam ne suñu borom tey jii ñu jégaat sax nekk ci am sëriñ bi nee na bis bii. ci waay def sëriñ bi ko defal ndax ci la jógee woon tuuti yi wuti ba am ba ne xel na yàlla xel na yonente bi ba xel na allahu ala muhammad wa xaali muhammad sallam bi da koo wax ni ko kat faaw nga nag boo xam ne daawuñu ko teg kenn yonente bi ko daan teg xaaj bu bu yàlla doo xam ne mu sa teg boo yeggee bu war a demee dañ koy yegg mu nekkal ko la loolu sëriñ bi wax boromam ni ko bakkan laa mu tàggaarante waaye fii de juróom-juróom fële ji ma fàtte bi rek laa ko moom féeg yaa ngi koy bàyyi di gërëm di ñëw gën rek produit bi nga ko war sëriñ bi nee na lii rek mooy sëriñ bi géej gi mu dem ca wuti wuti andi ko mu bokk ko ngël ci ngërëm ni amul sant sama borom ni jëlee ma ci ginnaaw lu ca waay def lu ne ci bis bi nee na sëriñ bi woon yëngu yee doowlee def yee lépp a mat waaye kon nag ñaan yàlla sant bi nanguwul na ko te seeral na te sellal na ko ndax ëllëg day am lii ndax li jëm lépp ëllëg mooy yàlla nangu yàlla yàlla nangu suñu jëm yàlla yàlla teelal suñu jëm yàlla yàlla sàmm njaboot sëriñ sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaan waaye man damaa wax ne sant nañu gërëm ci am na solo waaye mu solo lépp si la loolu la ñaan ndaw da nga koy ñaan ndax maa wax ni ma fooy dem nekk ci yoon. Dewa bi la suy jéggi ci gaal bi tooñ mu ngi tooñ sa borom sëriñ boobu yëg na ko loo xam ni jëmm yàlla gën a gis mu ne compte banque dafay nattu te géej gi jaamu yàlla jaamu yàlla waaye nag lii ci géej gi lu am géej dañoo wax ni huitième fan géej dellu ko sànni ci géej gi xam kon fa dem na tey moo la boobat bu kooku mën gis yàlla jéggal ko ba nga xam na kaa liggéey bu ko mën nag tey nga koo bàyyi waaye boobu moom gis nga fas yéene tubaab bu ko faa doon wax ñu ko dee wax su ma sugee def daan wax bu ko teel bi daan yóbbu si géej bi dugg si géej wax ba mu jeex xëy si géej gi ci gaal bi tubaab bi nga ko mun daal di yaatoo rek ndax wane ko jub si géej wax bi yoroon yoo ko mën na faa teggee def waaye dama dem si géej gi da ngay wan ñu sa borom man dina ñor moo dem si géej bi daa maa teggee kon nee na loolu nag taal yi bu mu doon def jàmbee war naa ñëw gis ñu war naa ñëw nga xam ak yàlla war naa ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah